joxe waat avertissement waaw wax na ko dëgg Malick nee na ko bul joxe waat avertissement waaye bi ne ma merci Malick Ngom merci Malick Ngom jërëjëf Malick Ngom ndax lu ñuy gën a jege avertissement yi lamb ji gën a soof Père Ousmane ndax cinq avertissement ñu tas lamb ji Reug Reug dem na déplacé wu na day dem day dem ko day dem Père Ousmane mooy yoon daa war a dem ñu ngay leetoo door na ko Reug Reug door na ko góos daa bëgg a jëli ci suuf la jëm su jëli wee lom fay fegg Père Ousmane jàppante nañu ñoom ñaar ña ngay damantey baaraam attention Reug Reug Gouye Gui Reug Reug Gouye Gui Reug Reug door na ko gauche droite Reug Reug door na ko gauche droite dooraat na ko droite dooraat na ko gauche dana ko door jàppante nañu ñoom ñaar eh attention Reug Reug loolu waru la attention Gouye Gui day door Gouye Gui day door Père Ousmane Gouye Gui ngay door kel na ko daan na ko daan na ko lay la fay la la caxabal wéeru ko da kay caxabal wéeru ko caxabal na ko wéeru na ko daan na ko lambul la lay lay la la caxabal wéeru daan na ko daan na ko jël bi set na set na